wax anduma ci xam nga lu tax anduma ci mhm. nañ jël ki bi téléspectateur bi alaykum ñu ngi lay nuyu soxna dina naa def delo ziar yaa ngi ci biir wax sa xalaat ak VIP people ah, am lu nu nakari rek am nga lu la nakari ah, man maa ngi wote Espagne d'accord tur bi pap Diop la pap Diop lan moo la naqari ah li naqari gars yi xam nga xam ngeen ko yéen ñi toog foofu. waaw mais nettali ci gémmiñu borom la dàkkee doo ñu ko wax. ah élection yi ñu dàq nii kay moo ñu naqari. ndax lan. ah dañ ko tegul fenn rek. ah. gars yi la xam xam na na bu ñu demee day dañuy ñàkk doog moo tax ñu reporté ko waaye yàgg yàgg moom moom li day day tax gaa yi gën a mer rek. kan mooy tax ñu ñàkk. mënuñoo fexe fexe fexe ba ba gagné élection yi moom élection moom. yow da nga gis ni ci yow da nga gis ni dañoo waroon dem élection ak li lëndëm li fi nekk yépp waaw yàgg yàgg dañuy dem élection kay ñu dem élection rek xam nga Macky euh, Macky Sall moom ak waa këram moom mënuñoo gañati Sénégal loolu moom élection mu fexe fexe ba élection mënta ñàkk mais nañ dem ci élection ci lu leer du dëgg waaw élection yi leer ay tappale rek yu fi nekk lépp leer hmm. ay tapale kare ñoom ah, ah, affaire six six kañ lañ ko fi daan contrôler dañuy mhm. jàpp Ousmane Sonko ñu naan ñu six six bi mooy àtte mhm. léegi six six àtte na affaire bi kii ñoom ñu profitoo ci mhm. ah lii kay wax dëgg yàlla moom moom mun ñoo fexe lu mën a defatim gars yi dañ gën a ind rek lii ñu def nii yëpp dañuy son seen bopp parce que moom seen alal leen bëgg a rawal la rek waaye yàgg-yàgg moom bëre bu kenn baam la rek jubluwaay lekk boobu nga xam ne moom yàgg yàgg gars yi daa daañu la kii munoo fexe fexe mun ñoo fexe fexe ba gagné réew. d' accord fii bu ñu yóbbuwoon élection yi ba deux mille trente rek. mun ñoo fexe ba gagné ko. d' accord merci beaucoup sëñ bi te bis bu gars yi kii lay gën a métti rek li ñuy def nii day gën a métti ñoom rek. d' accord muy Amadou Ba ak keneen ku ñu mën a tegatim gars yi dañ dañ leen di gën a mere. d' accord waaw ñoom loolu leer na leen xam ne élection moom mu fa lay ñàkk. yàlla di ñu yore réew mi moom milliards yi bu dërëm génn. dañ fexe ba bis bu ne élection moom ku jël réew mi milliards yi lekk ñoom ñëpp noonu ko nan ko ko. mooy waa ji toog foofu borom bopp guddi bi toog foofu noonu. Mhm. la ma la tudd. Mhm. am na borom bopp guddi bu toog sa pla sa plateau bi noonu.